ci diaspora ba. foofu la foofu la gën a doy si. non dama ni foofu fa mu ko waxee la gën a doy waar fal Macky fal Amadou Ba mooy fal ngeen man jàppale ni man ngeen fal. waaw la foofu diaspora bi vraiment élection yi ñu génnee boo xoolee diaspora bi. Hmm? mais mais bi xam nga diaspora bi yàlla ma yàlla baal dañuy waxtaan rek diaspora bi. yàlla ma yàlla baal ci la ci li ma bëgg a wax. c'est-à-dire eh, diaspora bi meluñu oh, mënuñu leen a comparer ak nii yow nii nii doyen. et pourquoi. Mm-hmm. parce que. te ñu ëpp te diaspora bi ëpp njariñ sax parfois 90 pour cent de la diaspora méconnaissent les réalités du pays xamuñu li xew ci biir Sénégal te ñuy yor réew mi. quand même yow man xam naa si 90 pour cent yooyu ñu jógee sama àll ba. waa léegi ñu jógee Tamba. les gens ci viennent de Tamba. Euh, font non Tamba moom non. Sénégal profond. Tamba Ziguinchor. Euh, Bakel. xamuñu euh, xamuñu les réalités dañoo jaarul Dakar sax. c'est-à-dire que ce sont des gens Dakar dafa tax nga xam réalité. non loolu nag mooy. moo bi des yoo xam ne du dara. Euh, yow doyen. au xam nga commencé former la diaspora sénégalaise. non xam non may ma rek may ma rek waaw may ma xam nga yow commencé former la diaspora sénégalaise mooy fan la mooy les gens sont venus de partout surtout ci biir àll bi jaaruñu sax Ndakaaru ils sont ils en France. léegi jaar Ndakaaru lan ban ban lan la mën a yokk. waaw dafa nànk rek mooy nga xam Sénégal deuxième bi. les gens qui sont en France pendant pendant le Covid. on a trouvé un village. Sénégal ñu gën Sénégal mooy waa Dakar. mu ne kii doyen pendant le Covid pendant la Covid. on a trouvé des villages dans dans la campagne française yoo xam ne ay sénégalais fi nekk. bëgg nga France gars bi caméra eh, eh, ñëwee eh, on a trouvé en en Italie. mais mais hmm. mais mais Italie Italie may ma ma yeggale. Italie jeexal foofu dama la bëgg a poser dama la bëgg wax ne la Italie. fekk nañ fa village yoo xam ne ay sénégalais fa nekk mosuñu xam Sénégal bi caméra yi ñoo dañoo daw bëgguñu caméra yi euh, foto leen ah, fekk nañu ñoo xam ne en en en Espagne. on a découvert des villages. soo demee en Italie. Euh, soo demee en Italie à Trento. wala nga dem au sud à salaire donc les gens ñu ngi travailler dans les champs la ñuy travailler où voulez-vous fi ma bëgg a ñëw mooy waaw gars yu bëri léegi internet bi moo tax ñi ngi ci gaspora bi ñuy génn ñuy wax mais xamuñu biir Sénégal te diaspora bi àndoon ak président Macky Sall en 2012 ba fal ko non mais quand même tamit tamit tamit mais dama la wax ne dama lay wax ne la diaspora faluñu faluñu faluñu ko en 2012 ñoo ko ñoo dañ ko joxoon bopp bu Mousane ñëwee mais faluñu ko en 2012. en 2011 parce que gasa matuñu matuñu électeurs c'était l'effervescence matuñu 100000 électeurs. les diasporas sont moins. waxuma mais seen influence raw na 100000 électeurs léegi autre chose pour terminer peut-être. waaw dama la bëgg wax ne la. mooy mooy yow sa parti elle est elle est bi elle est importante d'une manière générale. mais mais ñoom mënuñu décider alors pour le Sénégal dans son ensemble loolu laa bëgg quatorzième euh, quinzième région du Sénégal. mais cent mille yi la passé. quinzième région bi daal. mënuñu décider mais euh, mais aussi bon. Euh, c'est-à-dire que diaspora dafa dafa dafa changer ah dafa gisee la première génération de la diaspora c'était les travailleurs qui étaient dans dans les secteurs comme l'automobile la restauration ou bien euh, dans le, le, le bâtiment. Euh, actuellement, il y quand même nouvelle génération de, de, de, au de la diaspora. Et cette nouvelle génération-là, elle est bien formée, elle est bien éduquée, elle est bien informée. Euh, et, et, de, et de plus en plus. Mais Benoît a gagné la moitié. Benoît a gagné la moitié des députés de la diaspora. Benoît. voilà donc ils sont pas beaucoup plus forts que Benno. ah non de da nga ni laaj. non non voilà dama la bëgg wax ne la dama la bëgg wax ne la il faut relativiser li ngeen di wax. parce que ils sont pas beaucoup plus forts que Benno Benno est très fort dans la diaspora parce que moitié député yi moo gagné Wallu gagnéwul moitié yi ah Kële gagnéwul moitié bi nu mu tudd euh, Yewwi gagnéwuñ ko mais gënu leen ñoo fort ci diaspora. on a beaucoup de gens qui sont vaillants qui sont dynamiques. qui se battent au niveau de la diaspora da nga nekk di rectifier da